léegi nag xaj na pemteef la war a def. atia <laughs> mi ngi doon Mansour damay damay damay ñëw ci yow ba tey dañuy des ci li nga xam nag moo di ci rencontre yi ma gis nga euh, kii di euh, président Ousmane Sonko euh, dalal ki nga xam ne Juan Branco <laughs> daanaka ci texte bi nga xam ne bind na mi ngi nu si xamal ni ñoom ñaar ñu ngi soo gisee. gis nga ñoom ñaar aussi seen jaar-jaar mu nekkoon li nga xam nag moo di avocat mu tëj ko fi li nga xam nag moo di kaso xëy libéré ko fi daanaka booboog mi ngi soog a fi nga xam ne nag moom moo di moom si texte bi ñu ngi ñuy xamal ni mi ngi koy soog a gis lépp lu Juan Branco doon def daf ko def de manière bénévole nan nga mën jàngatee aussi boobu la rencontre ak kàddu yi nga xam ne Ousmane Sonko na ko euh, jagleel ko kii di Juan Branco daanaka da nga koy jël nga def ko benn lien moom ak li nga mujjee laaj sa sa mhm. wolof maanaam mu jox la réponse su euh, dynamique wala boog itam capacité bi nga xamante ni Pastef indi na ko ci politique. Mm-hmm. maanaam Sénégal bu ma sañoon wax dama naan soxor gi nañ ko wàññi ci suñ biir. Mm-hmm. maanaam xam ne àdduna du bu ñuy natt sénégalais dañ koy natt ci ban bët la ko sénégalais di xoolee. Mm-hmm. parce que bu nekkoon loolu la konoon jàpp naa ne amaana doo gis ci Mauritanie koo xamante ni Diomaye dina ko inspiré. ba muy roy comme li Diomaye doon def. parce que jomaay bi nga xam ne moom mu ngi ko def moom mu ngi ko def comme koo xamante ni benn idole la mais jomaay boobu la ñuy xas fii ci Sénégal mm-hmm. mais Ousmane Sonko bi nga xamante ni Juan Branco mu mu yoo xam ne doo leen fixé ci benn réew Juan ci nit ñooñu la bokk mm-hmm. bokkul nga xam ne France laa dëkk itam Espagne laa dëkk non non ñoom dañoo jàpp ne nitu àdduna bi lañ fépp foo xamante ni gis nañ fa injustice dafa am ñoom dañuy jàpp ne ñu ngi ci wetu kooku ba keroog solution di ci am mm-hmm. léegi bu dee jëmm yu mel noonu taxaw Euh, lu yë lu leen yéem la ci Pastef lu leen yéem la ci usman Sonko yéem leen ko ci Diomaye jàpp naa ne li am solo mooy ñun waa réew mi ñu xoolaat suñu taxawaay bu baax a baax mooy bu may dénoncé ki nga xamante ni bokk naa ak moom réew naa ko teg ci loo xamante ni lu logique la naa ko teg ci loo xam ne ci ay principe la mais bañ ko teg rek ci wax pour mbañeel xam nga jamono bi dama jàpp ne comme ni ko saa waxee léegi sànq maanaam comme ni nga xamante ni bitim réew wala boog itam ñeneen ak ñeneen ñu ngi tudd ay euh, seen ay seen seen ay doom mu ngi tudd Thomas Sankara keneen di tudd keneen keneen di tudd keneen est yëg nga ne maanaam bu nekkoon ci beneen réew. Hmm. jàpp naa ne jamono bi am nañ lu raw Thomas Sankara. Hmm. am nañ lu raw leneen ak leneen ak leneen ci ñi ngay tudd yëpp moo xam Nelson Mandela wala keneen ak keneen parce que ku ci nekk ci ñoom. Hmm. sa mission bi nga ko déparé amaana intention bi xamoon nañu ko mais wax dëgg yàlla fi mu mujj bokkul ak li nga xamante ni mooy fi Ousmane Sonko mujj ak projet am. na ñun Sénégal wax dëgg yàlla war nañ takk suñu mbër ñun moo xam ne moom la ñuy pour mu xeex ci Afrique. Ah. pour ëllëg ak ginnaaw ëllëg mën a dugg ci taarixu Afrique du ci yem mais mën a dugg ci taarixu li nga xamante ni moo di àdduna bi comme li nga xamante ni gis nga ko noonu ci ci ci ci mais loolu Diomaye amaana kooku Diomaye la jël. Mm-hmm. pourtant Diomaye rek nekkuloon candidat de ci élection yi. Mm-hmm. pourquoi inspiré wul ci ki jëloon continuité. te ñu te te ñu xëppoon ko alal ju bëree bëri wala boog itam defal ko lu nekk médiatique amaana campagne médiatique bu nekk ñu defal ko ko ci réseau yi uh-huh. defal ko ko ci télé yeeg eh, kii li xamee mooy li am solo dëgg-dëgg mooy nit ki li muy woote na nekk ci moom d'abord uh-huh. jomaay dama jàpp ne bu woote woon tubaabe tubaabelu jàpp naa ne ko noon waa Mauritanie duñ ko roy parce que am na ñu tubaabe woon lool ci ci ci campagne bi uh-huh. ba nga xamante ni bu ñuy génn fi ñu mënul ñàkk génn la ñuy génn mais ku taxaw sol benn yére wolofam dof def benn koppatem téye benn bale saa waaye loolu da koy séen rek nga xam ne kii africain dëgg la. Mhm. amul leneen lu nekk ci ginnaawam. léegi nag euh, loolu lim lay jox mooy Sénégal dañuy doog am président maa ngi koy wax bi a am que ne bruit bi li tax mu ñu bëri li tax mënuñ comprendre mhm. euh, Sonko Diomaye bi maanaam seen ànd bi. li tax ñu bëri mënuñ ko comprendre mooy dafa mel ne Sénégal dañuy doog am président. bu ma koy wax mooy amoon nañu ay njiit waaye est mhm. di nga gis sa bopp ci est-ce que saa wolof bu xoolee Diomaye day gis boppam ci Diomaye wala déet mhm. bu ko xoolee day gis automatiquement day xam ne kii sénégalais la comme moom day xam ne kii africain la comme moom mhm. loolu nag ne combat la boo xam ne ñun ñoo ko war a porter absolument euh, wutee ci gis-gisum politique mhm. mais nag wax dëgg yàlla benn leader bi Afrique daf ko manqué woon. Afrique ko perte woon. bu ñu amee sensu ñu war ko amaat te mu doo te mu doon doomu Sénégal jàpp naa ne war nañ xool ni nga xam ne moom lañ leen di opposé ci ñi nga xam ne lañ dëkkal ci biir réew mi. bu comme ni nga ko waxee sànq Ousmane Sonko mooy leader bi nga xamante ni gis nga pôle d'avocat bi ko waroon yëpp. Mhm. man mosuma ci dégg kenn ku wax lu wute ak li Juan ko wax. ba ci ñi nekk ci biir réew mi. Mhm. amu ci kenn ku naan la dama koy défendre parce que nangam. lu dul ne yëg nga li Sénégal yëpp yëg. Mhm. yëg nga li ndaw ñi yëg ba tax ñuy teel seen bakkan moo tax dangay dem ba ci biir da ngay yëg ne amuñu woon ñoom lu dul participation boobu. mais daf ci am nag ñoo xam ne seen taxawaay daf ci doon lu gën a comme par exemple ku mel ni maître Ciré Clédor nga jëkk gis as bi mu am. Mhm. at yi mu am cër bi mu am. waaye itam li ko mënoon a fekk ci combat bi nga xamante ni mëne woon na ko yëpp. Mhm. mais yooyu yëpp mu sacrifié ko tegee na le teg ko teg combat am ci koo xamante ni wóoru ko sax ndax dina yegg si au pouvoir wala déet. Mhm. ko ci benn projet boo xam ne xamul sax ndax dina sotti wala déet mais lan moo doon mbir mi mooy naa sacrifié wu pour ëllëg ak ginnaaw ëllëg mu mën a tàbbi ci histoire. pourtant ci moment boobu am na ñoo xamante ni ñoom la mbir mi gënoon a jege lool mais beneen camp lañ féete woon lan moo taxoon mooy jàppoon nañ ne mbir mi du sotti parce que galgal yi bëri na état kenn du xeex ak moom ba gañe ko te xamuñu woon ci jamono boobu ne état mooy askan bi mhm. te askan bi am na fu ñu nekk askan boobu nag bu ñu dajee donte la njuumte la sax yow fexeel ànd ak ñoom ci njuumte loolu ba keroog ñuy wëlbatiku wala boog mhm. itam nga ànd ak ñoom ci njuumte la pour fexe ñu wëlbatiku Juan Branco jàpp naa ne dama ko xool rek bi ma ko xoolee ak colkam maanaam man lenn laa gën a bàyyi xel mooy karaw gi man a Juan de mooy ki nga xam ne moo dugg suñ dugg fa maanaam ba génn ak karawam gu ak karawam gu bari. xawaan <laughs> nga yaakaar non man xawaan dem naa ba yàgg ma ne xawaan mais est-ce que ko fi may soxna benn yoon. parce que ni mu ñëwee ak style bi. ak sol bi. mais mhm. mais dafa doonoon benn jëm boo xam ne dafa amoon influence bu am doole. ci mhm. liggéeyu Pastef moo tax ci départ bi. des fois nga daan gis ko xam ne ci kama benn bokk yaakaar la bokk di ko jéem a minimiser. Mhm. waaw yéen a doon wax ne tubaab du ngeen kii ak moom di xiw Juan Branco bi même mhm. boo gis ñu après rek da ngay yëg ne ah ok ñoom ñoo xamul Juan waaye seen kilifa yi xam nañ mhm. Juan. li ngay xamee loolu mooy Juan bi mu tàbbee ci làng gi jël combat bi dugal ci loxoom ci nga gëy gis ay nervi bàyyil xel bu baax a baax li ma lay wax. laata Juan xam xel la tàbbi ci combat bi. mooy ginnaaw boo gisee torture yi ñu doon def ñoom Pape lay Touré. ginnaaw bi nga gisee ay nit yoo xam ne dañ leen di dóor bal ñëpp di gis vidéo yi. Uh-huh. wala boog itam ñoo xam ne dañ leen di dóor bal seen ay tànk nga gis fa image yi génn xawaan ñëw dugal boppam ci combat bi. mooy bu ñu condamné Ousmane Sonko ci Adji Sarr moo di moo di euh, CPI. Uh-huh. xam ne li fi xew yëpp danañ yóbbu CPI boobu nga a gis li ma la wax nii. boobu nga gëj a gis nervi di circuler ci mbedd mi comme ni ñu doon circuler. Uh-huh. boobu nga gis yu bare bare bare bare bare ñi nga xam ne ñoo di régime bi fi nekkoon wàññi ko. loolu nag dafa firndeel que ne àdduna nit ñëpp ñu ngi xoole mhm. même ki tëdd ci kaw lanam jël malaanam sangu sax nelawul dafa sangu kese mhm. adduna bi dafa weesu yaa ngi torturer Sénégal Gambie yëguñu ko mhm. yaa ngi torturer Mali Afghanistan yëgu ñëpp adduna bi lépp benn la benn bul la boo xam ne benn bul bu ndaw la dafa wër far adduna bi ñëw internet ñëw gën a boolewaat lépp. Mm-hmm. léegi nag boo tollee foofu dictature bi nga xam ni moom la ñooñ démb mënoon def mu jàll. Mm-hmm. da xam tey ne mënoo ko def yow mu jàll. parce que boo ko defee adduna ñoo lay bàyyi xel. Mm-hmm. lenn rek bu mu ci amee métit lenn lay doon. mooy Macky Sall li mu yàqee deru Sénégal du deram la yàq moom mais deru réew mi la yàq. maanaam balaa ñoo dem ba Sénégal di jotaat boppam comme na mu ko amee woon bi mu bi mag Sall di yéeg. dina xaw a dina xaw a jafe léegi nag ñan ñooy dund coono boobu ñan ñooy dund sacrifice boobu mooy ñi nga xam ne ñoom amaana ñoom du ko leboon mm-hmm. mooy président Diomaye bi yegg si au pouvoir fekk président Macky yàq deru Sénégal ci lu bëree bari mooy lan Sénégal kat kenn mosu ko xam ci ay événement politique mm-hmm. yu ñuy demee ba ne nañ ko yóbbu CPI parce que ray bëri na mm-hmm. comme ni waxee léegi bañ naan ay lu jege téeméeri nit wala boog itam téeméeri nit ñàkk nañ seen foofu Sénégal ak lu mën a xew mën nga ko wax ci ndóol mën nga wax ci nàngam mais jàmm kenn mosu ko kenn mosu leen woon a xam ci Euh, façon bi nga xamante ni moom lañ moom lañ yeggoon wala boog itam bu ñu leen ko ci xamee itam ay moment la doon doon ay 68 nga dégg histoire yooyu mais ba mu jàllee jàll na mhm. passé na mosu ñoo dégg wala boog itam gëj nañoo dégg ñu ne Sénégal ñu ngay reporter ay élection mhm. te yooyu li muy jur mooy dafay dem ba ki ci bitim réew ki nekk ci biti waroon a investir ci réew mi amoon yaakaar ci ne réew mi de réew mu dal la réew mi réew mu am démocratie la dafaa dem ba ne non man fii nag naa téye sama loxo mhm. parce que fii wóoratul toujours ñu fi yëkkati di ay discours yoo xamante ni à tout moment mën na taal réew mi. toujours ñu fi jël ay euh, décisions yoo xamante ni toujours mën na taal réew mi kon naa téye sama loxo moo tax jamono bi li ñuy dund ñoom jamaay ñi toog li ñuy dund. du ñoom ñoo ko leboon de mais bor la bu Macky Sall la lebaloon Sénégal. xar-xaram bu Sénégal amoon démb ak dem démb mu fexe ba taasal ko. après na dem bàyyi ñu loolu. léegi ban posture ak ban taxawaay la jamaay di amaat pour léegi yaakaar jooju dellusiwaat pour léegi mm, euh, confiance boobu dellusiwaat mooy comme ni ñu gis mu déparé nii. wane ne man dama ñëw pour ñaw. du question ko dañ naan dañuy sànni seen yow fële non non non mais ñi ci génne sax naka la ñuy defaat bañ mën a déggoowaat ci suñ biir. ba mën a mm-hmm. nekkaat benn. après nga yëg ne ci moment boobu muy teg acte yooyu nga xamante ni ñu ngi ko doon xaar ci koo xamante ne dañ naan ko yàgg pratiquer état la ko am expérience mm-hmm. mu ngi def loo xamante ni amaana homme d' état dëgg dëgg dëgg dëgg bu yàgg ci état moo ko waroon mën def. Mm-hmm. mais ci moment yooyu nga gis ñoo xamante ni ñu ngi fii ci biir réew mi. te nga xamante ni bu mbir mi ñuy dox bu sottee seen njëriñ la ñoom ñu ngi tiire ci kaw actes yooyu muy posé. pourquoi muy dem Mali pourquoi muy dem fii parce que ñii dañoo të ñii ñii dañoo coup d'état ba yegg ci au pouvoir mais coup d'état bi lan moo nekk ci suufam ba loolu am. coup d'état constitutionnel moo am après coup d'état bi doogu ñëw. mais léegi pourquoi yooyu yëpp mais ñooñu tëj nañ seen gémmiñ de xam nga Sonko lañ doon wax pourquoi muy dem Mali pour pour siste yi président Diomaye dem Côte d'Ivoire bi mu demee Ghana ñooñu far ne ko li yaa ci man dara mooy ñun ñun dañoo juumoon faf jóg dem léegi nga yëg ne maanaam comme li ma la wax ci ginnaaw moo ci nekk mm-hmm. maanaam ñun Afrique li ñu rafle woon comme leader boo xam ne day nekk leader boo xam ne exemple la mm-hmm. suñu ay ndaw réew bu ñuy jàng ñu leen koy jox e-, comme exemple dañ koo rafle woon dañ koo tumuraanki woon ñi ñu si ñenn ñi mën nañ gis seen foto ñenn ñi seen ay bind la ñuy dem liir mais amatuñu woon jotu wala boog itam amuñu woon sens mën a gis seen jëmm. Mm. léegi nag bu yàlla dogalee ndaw ñi jamono bii ñu mën leen jox exemple. Mm-hmm. Ousmane sonk mu nekk fi di dund ñu koy gis ñu mën leen jox exemple ci Bassirou Diomaye Faye mu nekk fi di dund daj lu nekk. pour ñu yegg si au pouvoir. Mm-hmm. mënoon ci sakk mënoon si desal seen bakkan waaye tam mënoon ci ñàkk li xam ni moo di seen ay alalu bopp mais yooyu yëpp ñu sacrifié wu. Mm-hmm. def loo xamante ni homme politique mosu def. yaakaar naa ne man ci li ma xam mooy lan yegg si nga au pouvoir wala boog tam war ngaa yegg si au pouvoir xam nga ne élection yii ñu jëm yow boo ci bokkee dootul doon élection présidentielle mais référendum lay nekk mhm. ñu baare la ci loo xamante ni xam nga bu baax a baax ne du yoon ñu tegal la ci table ne la est-ce que du ñu reporter élection yi may nañ la possibilité ñu reporter élection yi nga ne non non pour nga il faut ñu respecter calendrier électoral bi mhm. ci naka am naa koo xamante ni mooy man maay moom loolu ndaw ñi wuyu ko wuyu la ci mhm. ne la waaw d'accord nañ kii yaay moom mooy mooy yow jàpp naa ne kon Ousmane Sonko jamono bi wax dëgg yàlla taxawaayu Juan Branco comme bi nga wax sànq. Mhm. ak li xam ne moom la saa wolof jàngat sànq ci euh, jëwrin boobu nekk Mauritanie. Mhm. dafa firndeel ne li Afrique manqué woon. amat nañu ko alhamdulilah te itam fi ñu ko amee mooy doomu Sénégal. exactement gis nga gis nga gis nga teewaayu Juan Branco sax maa ngi ñëw ci yow léegi euh, Juan Branco bu ñëwee fii dafa am benn benn benn benn ancien ministre conseil Macky Sall di woo sur Yoroja naan waa Pastef dana complexe vis nga xam ne nag moo di Juan Branco nan nga mën jàngatee aussi kàddu yooyu. waaw war nañ mën a complexe si moom na xam nga lu tax. Hmm. mooy jëmm ji nga xam ne dafa ñëwoon ci jamono bi Macky Sall yoree réew mi. Hmm. bi muy ñëw bu ma juumul dañ ne yoonu Gàmbi la jaaree. Hmm. waaye yoonu suuf la fi duggee xam naa ne du aéroport la yéegee wàcc fi bi mu defee li muy def ci réew mi ba war a dox ñibbiwaat. géej géej gi la jël pour dem. mais nguuru Macky Sall ñoom jox ko cër bu toll ni dam dabee ji ko tani wala boog itam waa Mauritanie jàpp jàpp jàppal leen ko ñu indi ko ci réew mi. daf ko jox ko privilège boo xam ne ñun mosuñ ko woon a tàmm ci réew mi mooy lañ ko doon toppee. moom lañ doon toppee ñim ñim àndaloon bañ jàpp leen. waaye ñoom ñëpp dañ leen téye ci kaso gi moom Juan Branco ñu seetlu benn complexe bu régime bi amoon ci moom. bañ ko dugalee kaso deux trois jours lañ ko lañ ko may mu génn. ba mu génnee. Hmm. avion ba nga xamante ni moom mënu ko woon a am parce que yaakaaruloon ne loolu mérité na ko. Hmm. ba ci géej la duggoon ñoom ñoo ko daggal billet dugal ko ci avion. te mu première classe mu dem avion première classe kon jàpp naa ne bu dee am na kenn ku complexe. ak hmm. Juan Branco yaakaar naa ne ko bi fi nekkoon la parce que jamono bii régime bi fi nekk. amuñu complexe ci kenn xam nga lu tax. mooy fi ñu comme ni ñu xeexee ba yegsi. ñëpp dañ koo gis amu ci lu nëbb mm-hmm. bu dee président Macky danaa koy wax lu bëree bëri bi muy yegg si au ñu bëri xamuñ ko woon xam nga lu tax xamuñ ko woon mooy dafa nekk ci nguur directeur la ministre la jiite na assemblée nii la lële la ba yegg si au mm-hmm. kooku mënoo ko xam mais bu dee ñi toog nii Ousmane Sonko mooy ki nga xam ne amaana moo ci ëpp ndombal tànk lan la fi doon député maire bu dee mm-hmm. Diomaye lu mu commencé doon lenn impôt laa doon liggéeyee point kooku jàpp naa ne amul lu muy complexe amatul lu muy complexe fan la jógee pour nekk président kaso. Mm-hmm. njëgëjëf bi mu kaso la jógee. maanaam waxuma sax njëgë fa mu dëkk sax. Mm-hmm. parce que dem naa ba yegg fa boo fa yeggee boo fa demee ba yegg fa ku jógee foofu mën a ñëw nekk président waaye itam jógee waat kaso ñëw nekk président. Mm-hmm. kooku jàpp naa ne waratoo am lenn luy complexe. xam nga ñoom li ma jàpp mooy ñii ñan lañ am complexe. ndawu yi nga xam ne ñoo sacrifié seen bakkan bañ yegg si fi ñu yegg si. exactement très important. Euh, jàngat ji am na solo euh, Sa Wolof teewaayu. non loolu loolu dama koy damay dëggal li mu wax nii dama dem seeti président Diomaye ak sama benn xarit bu ñuy wax Ababacar Niang yàlla dogal président Diomaye lañ ma njëkk indil ndax ñoom ñaar bi may ñaan permis keroog moom laa laajoon bu Cheikh Omar booy nag maa xam moo ko doon joxe mu xawoon a jafe bu seex Omar mais bu Diomaye moo gënoon a yomb. Mm. ak bu <laughs> voilà. <laughs> non non boobu demagul. Cheikh Omar la Cheikh Omar moom neexul woon a gis parce que dafa am. ñu ko keroog keroog foofu du ma la dagg. Hmm. Oustaz Assane Seck nee na euh, bi mu kii kaso dañ ko ko laaj bi mu demee kaso bokk na ci li ko njëkk laaj ndax xamante nga ak Cheikh Omar Diagne non mais mais man mujj naa ko gis mujj naa ko gis te yàlla dimbale ma mooy may gis président Diomaye <laughs> ci la benn waaye ñëw di seet euh, Cheikh Omar ñu indi dendale leen ñoom waaja li mu wax ak Cheikh Omar keroog waxu ko moom man maa ëpp lu mu wax ak Cheikh Omar maa ngi koy jéggalu sëñ boobu te moom it comprendre na ko Cheikh Omar moom it ndeysaan euh, ñu nammante woon nammante ko ak yooyu mais laata muy ñëw président Diomaye def na man bi nga koy defal ak yooyu mu ne ma ñun bu ñu amee lu ñu naqarlu ci lii mooy duñu gor ay nit ñoo sacrifié joxe seen bakkan ay nit parte ci ñi laago ci ñu doonuñ ko sax naqarlu moo tax keroog moog Babacar bi may dem kii laa koy jox ko bind ko ca bunt ba jox ko Babacar xisnul abraar xase dëkk sëñ bàmb bu bu bu kawee la nag hmm. boo xam ne boo nekkee ci warab yooyu boo ko sàlloo rek suñ borom mën na laa defal lu kawe moo tax bi mu naan bi mu demee Touba bay wax ndeysaan bi muy wax man maa ngi gis sama sama bopp ci li muy ci li muy wax voilà mm-hmm. ci discours bi quoi mm-hmm. parce que man loolu laay def man bu ma lay kii soit ma surtout ci kaso loolu laa lay jox wala nga nekk ci xat-xat ak yooyu mais loolu mu tontu rek mooy li tontu kee léegi nag ma ñëw ci Juan mm-hmm. xam nga xuwaan nit ñi dañ ko nangul xam nga yaa ngi wax sànq ne euh, candidat bi roy Diomaye mhm. loolu pour man nit ki complexe dafa am ñaar dafa am infériorité ak supériorité. Mhm. benn baaxu ci nag. gis nga nit bu doonee jàmbaar fu mu ko mën a doone ci àdduna bi nee naa nitu àdduna bi la. Mhm. nangul ko mooy li war boo ko nangul tamit danga ngaa complexe. léegi nag boo ko nangulee ba bëgg koo jox place bu mu yekkul nag bu boobaay ba tey complexe la. infériorité loolu yàlla nañ ci yàlla musal. mais il faut être ci balance bi quoi loolu li ci am solo rek mooy li nga xam ne tey ñëwoon na dox si ko gis ci àdduna bi ku ñuy xor ñooñal mu ñëw ci te nit ñi xam nañu ne koo xam ne mas nga liggéey CPI. Mhm. Euh, bi ngay def moo xam stage ak lu mën a nekk liggéey nga fa xam nga commencé en mars. Mhm. loolu bokk na ci man nee naa euh, dugg xawaan ci dossier bi ak vidéo yi Ousmane Sonko yi bokk na ci li indiwaat Macky Sall à la raison. Mhm. mu taxaw pour. Euh, amal mbir mi boole ci Ousmane Sonko moo waxal boppam buñ ma toppoon Ousmane dana bokk Karim dana bokk. Mhm. te gis nañ Karim def tout pour bokk mais mhm. Ousmane gis nañu ne daf ne nañ respecté ndeyu àtte ji maanaam euh, constitution bi li mu saxal te loolu moo ñu jox résultat bi moo tax ñiy dof dof lu naan ay président Diomaye daa am dette politique nangam mais dëgg la. Mhm. mais kay loolu kay loolu mooy géej am na ndox. yow boo buggee ci yoonu. fàtteloo président Diomaye bor bi mooy yaa ko lor te loolu moom la gars yi di ci la ñuy œuvrer mais heureusement ba bi ñu ko seqee gor muy président Diomaye diggante boobu moom yaakaar naa xat na xat goo xam ne xam naa dugg ci dana jafe de moom lañ jàpp de mooy maillon faible bi te xamuñ ne maanaam même Pastef sax li ko gënoon a defal doon na am ñu am ñu leen naqar wala nangam na mais Diomaye moo ko doon résoudre. te xam na comme xam xam nga ba pare gëm yàlla gi ci moom dafa sama benn xarit Moussa Bane maa koy ziar dafa am benn waaye boo xam ne dafa bokkoon APR xëy na day bàyyi ca jamono yëpp affaire bi di metti quoi léegi bi mu bàyyee mbokk yi ñëw di def ci moom pression waa APR di def ci moom pression pour mu dellu ginnaaw ci lim nekk parce que xawoon na déclarer affaire yi noonu quoi mu war a def benn déclaration bu mag Moussa Bane di kii président Diomaye naan ko nañ gaaw kii parce que nangam mu ne ko Moussa mu ne ko projet bi volonté moo ci indi nit su demee ba nit ki wóor na ko ne day layaam layaam bi wala parewul nangam mooy tàmpi pour moom la bu mu dugg mhm. mais ñun nii la ñuy doxee mooy xool xam ne pas-pasam war na koo may mu dugg ci parti bi mu ànd ci projet bi mais bu ko wóoroo ne ko am na ci lu muy ragal wala nangam soxlawuñ ko mel noonu xoolal xoolal boobu tolluwaay moo tax ñii nañ noppalu xu daal coow lu du bari mhm. lii indi Sayid Larif ak keneen ak keneen moo ko indi mhm. ko indee joué na li mu war a joué defe na ko ni mu ko war a defee gàcce ngalaama moom mm-hmm. voilà. alors ça si si si ñëwam boobu fam kàddu goo xam ne gis na ko mu mu mu jaaxal yu bëri euh, daanaka fii ci biir Sénégal danoo diaboliser woon ki nga xam nag mooy Ousmane Sonko ci coowal viol bi nga xam ni ñu ngi si doon wax. Mhm. bu ñu demee fële ca euh, CEDEAO foofu aussi dafa dégg boo xam ni wala kàddu goo xam ne jaaxal na ko mooy si euh, yaramu Adji Sarr dafa fekk li xam nag moo di sperme. foofu ci biir CEDEAO non loolu mooy juge bi nga xam ne moom mi ngi dugg ci loo xam ne yoonam nekk ci woon. maam mhm. dafa duggoon pour enfoncer carré pour enforcer. enfoncé Ousmane Sonko loolu mooy wax ci ak tappale yi fi nit ñi def yëpp benn instant nga ñëw déglu avocat Ousmane Sonko yi déglu ñële ñu wax mu wër na mhm. leen jamono bi ñoom ñoo damele pion mhm. nga ne noo ñeneen ñi may nga leen ñoom ñu tax nga may leen quoi nga ne leen may nga leen ñu yeggale dix minutes ku nekk mhm. maanaam pour ne leen léegi na nañuy waxaat te loolu fa la waroon a nekk mais may nga ko après ñiy jël ko léegi ki nga may tàmbali waxu trois minutes na jeexal na nga ne waa keneen ki yow tamit trois minutes ngay wax te maye nga ko ba pare. Mhm. léegi yow maanaam man ak yow bu ñu ne la kenn ku nekk am nga vingt minutes mais yow boo utilisé wul sa vingt minutes sa affaire la mais teewul dogaloon nga ba pare yooyu yëpp ay irrégularités yoo xam ne ni yaa ngi koy gis nga xam ne lii ay tappale la man ci boobu laa ko nee naa leen kii moom. Mhm. da ngay xam ne carrément wax wax na leneen lu des droit jarul pour nekk expert pour pour xam ne kii day tappale loolu moo ci léegi nag mu war a yee Afrique ci ñu góorgóorlu. Mhm. def CEDEAO boo xam ne CEDEAO di peuple lay nekk du nekk syndicat de chef de l' état. parce que loolu man pour man CEDEAO moo yàq Afrique. Mhm. parce que dafa commencé doon par parloo bu chef de l' bu dem tripartite constitution bi duñ la lijjanti bu ay.